mas na dàq kiwil ba jàpp ko Seex Ibra bi muy gone kéwél gi di yuuxu mu bàyyi ko ñu ne ko yow nag Seex Ibra jaaxal nga nu lan moo tax nga bàyyi kéwél gi mu a xanaa déggu leen li muy wax da doon wax ak bàyyi may te gisul sëñ Tuubaa de sëñ Tuubaa kenn xamul lu mu doon la tax Seex Ibra raas ko danañ ci ñëw mu ne xanaa déggu leen li ma kéwél gi wax booba waxe dof lañ ko teg kewel guy wax mu ne waaw kewel gi neena dafa bëgg nampalé ay doomam naa ko yërëm ngir yalla té yërmandé jam ñëpp ngi sama loxo ma wara won nit ñi naka la baba xamaguñu lool waaw mu neena gi mu dem légui fofu la gëna jamono ci ñooñu la bok mam seyne bu ñay mi ndeyam di njare njare mam dem ba njare moy maami cheikh ibrahim di ñoo